yaa ngi bëgg a compliquer l'affaire yi. ci ay jeu de mots si non non non non yaa ngi bëgg a compliquer l'affaire yi ci jeu te xam nga ni li ma lay wax lu leer la coalition ngay àndal. coalition ñoo lay investir. ñoo lay ñoo lay investir. coalition nga mën a ngay ngay demal ngay ngay ngay demal élection. mais kon boo bëggee bëggee bëggee bëggee tàqale coalition ak sa bopp mais man comprendre ma li nga bëgg indi yow ci ci ci ci ci élection. non tàqalewuma coalition ak suma bopp. waaw dafa am dialectique bu am ci biir man dialecticien laa formation marxiste léniniste dama ne la coalition bi ginnaaw ñu ànd partie yu bëri ay mouvement ne El Hadji Diouf moo ñu doy man laaju ma leen xaalis parce que kenn ci ñoom du falu président ëllëg ñàkkuma jom na indi leen ku nekk ñaar dërëm ñetti dërëm mu mat pour ma bokk doy naa leen wóolu ngeen ma seen yaakaar laa loolu rek amul prix loolu jana milliard mooy confiance bi ñu am ci man man au retour pour ma nekk président léegi man laa jox lan laa joxe contribution comme ma fal sama bopp ñoom ñoo bëgg taxaw fal ma xanaa ma indi ay moyens nag teg ci taabal ji waaye ku ne indi indi buy pare man kenn ma falu kenn du fal coalition kenn du fal parti dañaan Ablaye Wade est élu Macky Sall est élu avec cinquante huit pour cent du ni la coalition benn bokk yaakaar comme élection député d'accord te bu dee élection député dañuy wax Benno Bokk Yaakaar après ñu ne beneen coalition. am na tant de députés. d'accord mais élection présidentielle benn cundum lay mooy génn kooku nag bu dee mënul moom génn ci poosam mais ah gars yi la yéwén bëgg ngeen ma wóolu ngeen ma sopp ngeen ma tànn ngeen ma man ne teg naa li ci table ji pour yembaleen mbir mi ki ngeen yaakaar du leen war ndax préparé na démb tey soog a ñëw.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 ñu naan ay jigéenam ñoo cotiser trente de wala yooyu xam nga fekk génne mu ñaar dërëm pour mobiliser femmes yi def cinéma ne peut président joxe nañ la wala éleveurs yi joxe nañ la sa caution gis nga ko fi loolu. d'accord <coughs> man nekkuma ci cinéma politique nekkuma ci hypocrisie politique nekkuma si ci yalwaan politique ñu yalwaan ñu ci leen oto ñu yalwaan ñu ci leen kër. ñu yalwaan jox leen ñu jox leen caution pour yore réew mi kuy yalwaan dëggantaan ñaay mënoo yore réew. d'accord alors mais nag <clears throat> koo xam ni. waaw xoolal lii kii ndax moom war na laaj réew mi wala war ko laaj. maître lii compliqué na de lii ngay wane ni waa lii xoolal ñu koy rek. fu mu dem na nii la bu baax xoolal xoolaatal yii image nga wax yii ni waaw. ah mais maître lii doy na waar de. lii lu doy waar de. Ah, lii lii ah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 ñu dem wàññi ci mbedd bi gis nga ñoom kandaa yooyu yóbbaale junniy oto ñu ñu sànni ay lacrymogène dañoo occuper la voie publique man benn oto cunnam ak sama chauffeur amul sa garde corps xam nga lu tax maa ngi def choix bi de dañ ni l' élection présidentielle xoolal Omar Thiam ndeysaan ñu ngi ko téye te deful dara ndeysaan ñoo ànd ak kosi ñoom ñu taal benn waaye ca armée lew na ñu ne Omar Thiam directeur quartier foo kooku ñor taaloon jàpp ko te moom yëgu ñoo àndoon man ak moom mu ngi ni danañ man pour dire fu ma dem dañ may teeru teral ma war a ma ne ma yow lañ foog. yow lañ yaa ngi koy xool bu baax. maa ngi ko gis xam ne El Hadj na nit. ok par dëkk dëkk fii Koungheul la bu ñu nee léegi Nioro la fii Koungheul la. Mhm. fii Koungheul la mën nañu ñëw ci débat bi s'il te plaît. Ah. mën nañu ñëw ci débat bi s'il fii gis sama arrivé ci oto bi waaw waaw. na ko wane xam nga. Euh, te yow rek ay ànd ak sa chauffeur.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 ñu dégg li ñu ba. ok may ma rek ñu teg loolu muy wax maître s'il vous plaît. baal ma rek moom sax uma nga teg ko may ko une seconde rek wax. maître s'il vous plaît. xam nga léegi xoolal feuille parrainage xoolal feuille parrainage xoolal feuille parrainage xoolal xoolal Pape feuille parrainage yi mu ci lay wax noonu parrainage rek mobiliser li yëpp. xam maître. xam nga lii xam nga lii maître lii ñu la lii ñu def lii nii def ko ah. baal ñu yemale xam nga ni doy na itam leneen lu ci rax mu nekk propagande. non doy kon baax na boobu.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 Euh, commission des finance wala leneen ak leneen. non ñu wax ni dañuy dem ci élection non boo xam ne ki nga xam ne mooy leader bi. mooy génn xaalis bi def non non. coalition boobu mooy organiser réception yëpp fi may dem ki ni mu feesee dell chaise yi bâche yi sabar yi ah, euh, micro micro bi sonorisation bi loolu organisation bi jël en charge loolu coalition bi ko jël en charge. d'accord xanaa sama essence kay duñu ma ko jëlal.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 mais man gis naa ay image yu bëri ci internet bi yoo xam ni mais li ci ëpp nit ña bëri wuñu yu xooyee bari na su ko defee nga nekk ci di ci loolu gis naa no non non loolu du sama manifestation ak sa aqulataar du sama manifestation damay romb kay di dem benn dëj yëmbal wala may dem benn boutique wax naa ko fi un jour boobu nduur ma amul ma ne ko man damay dox ci marché yi di dox normal nit laa du ma damay dugg jaxasoo nit ñi damay may le député du peuple président du peuple ëllëg incha allah man damay dugg boo yu réew yooyu nga xam ne indi nañ fi loo xam ne mosu fee am seen moroomu bàyyi la ñu naan diw diw diw comme ay xaj di mbow kooku man defuma manifestation de dañu may seen may dox may dox kenn sël armée nekk ba kenn jege ma nag mais ñu taxaw diw diw diw diw mbow comme ay xaj loolu comme ñoom loolu lañ jël journaliste bu wax lu neex seen waajoo ñu saaga xam ne ma lay wax maa ngi ci professeur nuyu ay ñoom Binta Diallo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 maître maître dinañ xale yu buccatiku réew. d'accord ba dof. maître dinañ dinañ tekkiwuñ dara mel ay xaj li mbaw. d'accord maître yaa ngi ci coalition Benno Bokk Yaakaar loolu nga mës a wax. que jàppoon ni sax ñoom war nañ la investir nga nekk ah seen candidat alors xaral ma ñëw. alors maître ba bi ñuy tabb ki nga xam ni mooy Amadou Ba su ma juumul yaa nga fa woon. Euh, yaa nga fa woon. Hmm? Euh, kon mooy wane ni àndoon nga ci. déet xanaa suivre def non xaral rek xaral xam nga yaa nga fa woon. Euh, ah. ñu tabb ko. oui mais man jàpp naa ne ci discipline ci coalition. Ah. su fekkente ni loolu am na bu ñu ko tabbee mais amul leneen loo war a def lu rangé wu. kon yow lan mooy coalition bu réew <laughs> du dara parti politique mooy dara coalition moo ñu dajale seen seen doole rek pour am dara amul lien amul c'est pas organique du amul président vice président secrétaire général trésorier général ñoo xam ne parti la am ay statut d'accord mais ya ñaata coalition moo fi am mm-hmm. tas xanaa kay benn moo yàggee nii rek du dëgg soppi am na fi coalition. coalition soppi ma ci laa bokkoon Abdourahmane Agne Djibo Leyti nam euh, si yàlla si Mamoun Niass Abdoulaye Wade Mbaye Diack Latif Guèye ñeen ko yàlla yërëm dañuy boole soon doole mais kenn moom ci kenn dans une coalition les partis sont d'égale dignité benn parti du war yëkki ko moroom parteem keroog bi ñu dajee palais président ne parti may na ko mu tànn koo xam ne mooy nekk seen mooy candidat Benno yëpp. Mhm. mais day ñaan waa Benno ànd ci. lu mat cent cinquante intervention man xëy na maa ngi woon ay centième position li ma jëlee parole même l'observateur bind na ko li ne seul Me El Hadji Diouf s'est démarqué pour pour dire qu'il est ne ko président. sama xarit nga de jàppale naa 2012 fal la jàppale ci benn bokk yaakaar parce que premier tour ba ngi Moustapha Niass la woon Benno Siggil Sénégal moomu nekk Macky 2012 Idy for présidente ak nem si yàlla benn Tanor ak Tanor ñoo fusionné ak ay ñoom RTA yenn parti yu bëri ñoom dans ce xoo bàcc li ci lañ créé Benno Bokk Yaakaar ak ñoom Mahmoud Saleh kat si woon Mor Ngoom Saare euh, Yaan Thiam ñun ñu la woon Moussa Diakhaté Jean Paul Diaz bi loolu amee. Mhm. mu ne ko fal naa la mhm. bul espérer benn yoon man ma ne la yow Macky Sall suma xarit yaa may tànn ëllëg président du Sénégal suma parti. man la gën a bëgg ne yow comme yow sa parti APR yow la gën a bëgg ni man déggoo ma de yow Macky Sall sa parti APR yow la gën a bëgg ni El Hadj waaye ma ne nangul ma ne sama parti man la gën a bëgg man El Hadj Diouf ka yow PTP be Hadj Diouf la gën a bëgg ne Macky ci kaw loolu ñëpp ki toog de biir palais ma ne ko suma parti daf maa tànn pour ma jiite réew mi maa ko doy. kon mayul kenn mu di ko tànnal kenn tànn ba pare kon mënoo ñoo tànnal ndax waroo ñoo tànnal. mais ba ngay wax loolu xam nga. président ñu toog ñëpp ñu ba ngay wax loolu nga ni ñu mën a nekk président ni moom président Macky Sall ña nga foon nag ñu mënoon a nekk président comme yow ni nga ko bëggee a nekkee ña nga foon nag mhm. mais terewul dañu ànd ci li président wax ñu daal di ci ñu daal di ci ñu daal di tànn Amadou Ba mu nekk seen candidat. yow du dégg nga lu weer li président waree tànn mënul tànn. dégg nga Abdoulaye Daouda Diallo fii président koy recevoir daa ko régul bu Abdoulaye Dior ñu koy recevoir mu jógee ne Moustapha Niass sax la dénk biir bi pour mu rencontrer gars yi. moom mooy Moustapha Niass yow rencontré wu la. non man président moo rencontré le lendemain. parce que ñu du chef de parti man président mooy sama nawle ñoom duñ sama nawle Amadou Ba wul parti Abdoulaye ne Diallo n'est pas chef de parti Aly Ngouille Ndiaye n'est pas chef de parti Mame Boye Diao n'est pas chef de parti. Serigne Gueye Diop n'était pas chef de parti ñoom ñëpp APR la yoon am un chef qui s'appelle Macky Sall man chef bi ma recevoir parce que man chef laa comme de parti kon yow ma niveau ak ñoom man conférence des leaders bu dem ñoom duñ dem Amadou Ba du dem réunion Abdoulaye Daouda du dem Aly Ngouille du dem Moustapha rek kii mooy ñoom Macky ak Moustapha Niass chef AFP ak Aminata Mbengue Ndiaye chef PS chef de parti yi ñoo ñëw kon bu kii di recevoir mën na ma recevoir te balaa ma ñu yem garaat parti bi AFP dafa nekk bàyyi euh, chefu euh, PTP APR dafa chefu PTP. Euh, maître donc dama bëggoon nga xam foofu. Pape maître xam nga xam nga li nga wax mën nañ ko nangu parti parti la. waaw waaw xam nga parti parti la. mais boo taxawee di méngale sa parti yow ak APR wala ngay méngale sa parti ak AFP. mais maître danga nga bëgg wax lu la neex rek mais xam nga ni parti yooyu xam nga ni bokkuñu ak sa parti du ci dayo du ci ay compétition électorale yoo xam ni am nañu ci ndam du ci leneen du ci du ci jaar-jaar du ci leneen. man de du ma moroomu parti yooyu. ah bu la neexee. ndax dama gis depuis 2012 ba léegi. bu la neexee. depuis sos APR ba léegi par exemple APR mosu dem élection day làqu rek ci coalition man dem naa 2012 man kenn am depuis forest dañu ko saboté. ma delluwaat 2017 aw ma député élection dañ ko saboté ma démarré man kenn koo ci ñoom AFP mu ñëwee dem moom kenn te bokk benn bokk yaakaar man rek maa ko <laughs> ñuy wax parti yóbbaaleem ak parti yu du dem man bokk ma ci de yow 2012 depuis le forestera man kenn te boobu dafa métti woon ah mag Macky Sall ak Moustapha Niass Tanor Dieng Idrissa Seck. Ablaye Bachili fa Amath Dansokho Madior Diouf El Hadj Momar Samb Abdoulaye Coulibaly ñun ñëpp man kenn ci nu ma rocceeku jàlloo ñoom ñëpp en 2012 boobu Khalifa Sall sax mu mu mu ñoom ñëpp ñu ngi ñu ngi Benno Bokk Yaakaar non seulement dañoo gagné président bi soo gagné day am état de grâce ci sax ci 4 mois ñu ne dañuy def élection législative pour di député. ma ne Macky Sall Moustapha Niasse du ngeen ma may député hein député kenn du ma ko may maa ko wuti xoolal président bi soo soog fal nga xam ne day am de grâce lépp lay lépp lay lépp lay raflé AFP ñamul demal boppam PS ñamul demal boppam réew mi ñamul demal boppam Idrissa Seck ca la Thierno Bocoum nekkee député mhm. kenn ci ñoom du LD du PIT kenn ñëwul dem boppam man kenn man hey man maay député du peuple. d' accord de 2007 ba 2012 maa l'homme du 23 juin 2011 kon kenn du ma yóbbaale. d' accord kon moom nangul ma Pape nangul ma ni ki la ñuy wane sama parti moo mën PS moo mën AFP moo mën APR ah ci la wane ñoom mosuñu dem élection ñoom dañuy boole PIT LD AFP APR RTS parti gunni ils sont trois trois cent partis man ma demal sama bopp même bu ma amul député demal naa bu ma ci sama bopp élection yi ay 18 heures am sax bulletin de vote pour El Hadj Diouf ci bureau de vote yi nu may jàllee.